Assalamualaikum sama video video bu ndaw pur leen bëgg def rek pour wax len ci décision bu Dembi. bi li tax ma kay wax dafa am fu ma bëgg commencer bu ndaw te président Ousmane Sonko daf ko waxoon Macky Sall yeen des fois ni naa leen lu président Ousmane Sonko wax dama ki indi la ben par ben tax ma kay wax man dama ne dekk bo xamanteni bu dey jinne politique danoo politique ba tuba bi fi la ni ñëwé di sàccee seeni stratégie di dem seen dekk di politique ñi ay descendant prophète lañu yenent yi taw yenent yi gënoon a nga xamante ni gënoon a daj gënoon metti ñu leen di xeex façon bu ne ñu leen kay def ñuy dem ba yeneen yi dem ba yor dëkk bay gérer dëkk ñooñu foofu la ñu tibbee ñëw jàng histoire yooyu yëpp jàng yooyu yëpp di ko jëfee danoo lanc lépp histoire bi yàlla bind ci àdduna yëpp lan lanc tey kon xam nga nit ñii kon ñoo mën a politique ni naa la scénario bu Macky sàll teg ma taxaw ngeen jël leen bi ak fay teg lii la ci jublu nii la koy doxalee man maa leen ko wax Macky Sall yéen dama leen bëgg a poser benn question xam nga Sonko mosoon na ni Macky Sall bu ñu commencé xeex ak moom xeex bi du jeex lu dul mu abal ñu wala mu sànk ñu période boobu jotagul ba léegi te xamoo leen ko te Macky Sall xam na période bi te bëggul ñu àgg ci période bi période bi nag laa leen di wax mooy kañ yéen ma leen doon poser question est-ce que yaakaar ngeen yéen makki Sall xaar ba Sonko am lu mat ay parrainage 3 millions 4 millions parrainage population bi yëpp diaspora bi ñëpp ànd ak président Ousmane Sonko Macky Sall bàyyi ba conseil constitutionnel décembre ba mu des deux mois élection yi ba décembre ñuy naan Sonko du candidat yaakaar ngeen Macky Sall xalaat boobu xalaat na ko muy police di gendarme di armée am du kenn ku am kattan boobu kenn ko sañ doolu kër àdduna amul parce que lii Khalifa Sall amu ko woon Karim amu ko woon li Sonko am nii population bi nga xamante ils sont prêts à mourir nga bàyyi leen ñu def décembre deux mois élection ngay candidat ni Sonko bokk ji loolu ni bon Sonko bu fa rek bal na c'est fini moo muy jeu mais jeu dafa am lu ci kale bu leen combat bi la jeex wax naa ko sama vidéo bee bee il faut être bon psychologiquement physiquement ngeen pare il faut être endurant moralement bu len pas déstabiliser record bi nek recours bi ñi def définir les Sonko day ont candidat sax ba faw fofu te droit rek la juge bi di xol amul ministre be wax nga sax ministre bi wax ak bon bay ñi mais bon Allah alam recours Le droit rek lañ fay wax te Sonko nee na ñu kalm calme encore Macky Sall heure xeex ba lay bañ décembre ba xam na ni bu jotee dëkk bi amul lu ko mën a téye kër àdduna bu nee Sonko du candidat xam na ni Sonko buy buy am parrainage di àgg ba decembre kenn mënu ko tee ne candidat jeu bi muy jeu yëpp bu mu àgg decembre la foofu mënu ko téye amul kenn ko mën a téye ndax du ko sañ ndax dootu ko xam day am population bi yëpp kii la la ñu àndal te ñëpp a wu taxaw

maki bi moy dernière cartouche bi li li lii lii du décembre de conseil constitutionnel mënu ci dara li moy dernière cartouche ta amul ben preuve dara affaire forcing ta forcing bi nak du jallu le lolou la len bëggoon wax gaay après amna vidéo mu len préparer pour wax len ci ruelle bi ñu tuddé Macky Sall ñu naan dafa défar infrastructure rek ni la ka defaree rek jël alal gi yépp jëlé ko ci bitim réew ak tubaab yaak ñun ñoy fay bay bëgg dé na wax nan la ni défaré infrastructure ak nan la ñuy yoree dëkk pour ngeen xamante ni Ousmane Sonko moo jara téye moo jara jàpp moo jara àndal wasalaam